sori na ak Kaam TV mooy lu ko amal amal Diouf ñu gën maa xamee ci Aïcha dëkk ci dëkk bii gis kër gi ñëw kër jaaram fii ma toog nag muy sama kër turandoo baax na par hasard rek laa tombé Omar Diouf la waaye Aïcha lañ bëgg a xam. waaw foofu fi ma koy tàmbalee rek mooy dama koy tàmbalee ci askan bi ñi nga xam ne ñoo dëkkee suuf d'abord. ndax puudar nu mu la gisee rek noonu la lay ëwalee. te olof nee na bala nga naan maam nekk. jafe-jafe yi projet état la bu ñu koy wax mooy doomu aadama yi ñëpp ñëpp ay état lañu mais dafa am chef de l' am ay secteurs yu ñu séparé divisé ko maire ba ñëw ba ci chef de village ñëpp la tënk mais projet yi ni muy ñëwee li njëkk li njëkk nekk erreur mooy ci population bi laay njëkkee maanaam consultation bi war a am ba ñu xam seen intérêt lan la lan la ñuy nangu ak lan la ñuy bañ foofu la erreur bi di amee li ñu gis rek mooy ay paiement dañu la fay fi may waxee ni dina kët na jonn ci gox bi mooy fii ci rond-point bi ñu ngi fay xàll benn espace boo xam ne xamatuma ñaata hectare la mais lu rëy la démb par hasard laa jékki-jékki ñu woo ñu am na ñu xàll fii ba boo demee da ngay gis ne loolu nekkee projet boobu ñu ngi koy dox ci suuf lu yàgg maanaam autorité yi bu ñuy wax autorité rek tàmbale gouverneur ba ba ñëw ci set de village xëy na population bi ñoo yëgul woon mm-hmm. mais autorité yi ñoon ñu ngi ko doon dox mais loolu man jàpp naa ne du noonu mm-hmm. ndax nit boo leen jiitee tekkul ne da nga xëy rek def dara ci seen kaw ci sans ñu xam dëkk dañ ko yoree ci lu mu doon doon projet ay nit nga fekk ñu doon ko béy ay nit nga fekk ñu préparé woon pour tabax pour dëkk ko état ñëw ne dafa am lu mu ko soxla mais balaa dara am conseil technique ñi ba déggoo am ñuy soog a jàll ci leneen mais loolu moo am. foofu lan lañ ko programme li ñu wax daal dépôt la ñu wax pour la pour waa APIX pour travaux terre bi la ñu wax bu mu comme information ndax wér na wala wéru li ci kanam rawul bët mais loolu daal li ma fay wax ndax démb bi ñu fa demee nee nañu daal lii suñu problème mooy information bi daf leen raw parce que lii du tey lañ koy dox foofu question mooy posé information bu mu ñëwee ci kan la ñëw lu tax yeggul ndax ba mu fay taxaw juróom benn nit wala juróom ñaar nit fekk nañu ko ñu ne sur le champ la ñuy soog a yëg ne dara daf fiy taw te ñooñu dañ fa am suuf dañ fa am tool tool yi ñuy borne ak ñuy bornoo ñuy béy ak yoo xam ne dañuy prévoir woon pour dëkk fa kon bu fekkee préfet ñëw na bi waxtaan kon waxtaan bi yeggul ba démb démb la ñuy soog a imposer nit ñi pour ñu dem direction APIX bi nekk ci Sébikotane pour ñuy concerté wu Mm-hmm. yooyu yëpp tamit mën na ñàkk ci mm-hmm. ku respecte sa sa askan boo doxalee noonu mm-hmm. parce que bu ñu naan état rek lu mu bëgg da koy def par force force yi amatul fenn ci àddina conflit yi ci am ci àddina yëpp conflit bi ci gën a garaaw mooy bi suuf déclassé juróom suuf te suñu état yi dafa mel li ci des rek mooy askan bi ñoom nañu xam nit ñi bu ñuy wax du maa moom sama tool nee na dañu may fay ñaari million wala juróomi million loolu du enjeu bi enjeu bi ci kanam grand bi sama tonton bi wax na ko léegi sama papa bi yaa yaa ñu ngi tabax teer amul arrêt amul gaar mhm. diggante Landoor Suun amul passerelle amul benn luñ sa pare loolu ñu defal la passerelle defal la ndox defal la cadre de vie bu baax moo gën ay milliards mhm. bu la fayee sa tool 10 millions si ak 2 mois mu jeex nga war a dem pour nga dem ba Thiès soog a ñëw pour est loolu. am fooy jaar gënul million kon équipe municipale bi erreur bi tamit mu ngi ci ñoom mais erreur bi tamit mu ngi ci population bi nga xam ne ñooy nangu million million yi ci ci tool yi erreur bi xëy na mën nañ koo waxee erreur mais li gënoon mhm. amul li gënoon mooy boo amee maire mhm. am gouverneur am préfet am chef de village ñooñu bu ñu yëgee information ñoom ñoo war yee seen population yee leen xamal leen impacté lan la enjeu bi lan la mhm. waxtaan boobu nga doon gis sama tonton bi wax na ko mais bi de man dama am suuf ci terre bi mais ba tey teguma ko bët. doo ko gis teguma ko fi travaux yi amee foo koy gisee mooy nga fekk ko bureau wala nga daje sous préfecture ñuy détaillé loolu xettali boobu daf leen war lu question demal bindu ji bu ñu lay fay nga fay la mais moo mais orienté nit bi ba ñu xam seen intérêt lan la. Mm-hmm. naka la ñuy défendre ba am gaar am arrêt am ay passerelle am ay yoon terre bi dafa am lu ànd ak projet bi mooy ay hôpitaux. ay terrain yu ñu collectivé mm-hmm. ay poste santé yu yu am niveau loolu de directeur APIX yi am na ñu ma ci wax ne loolu dafa bokk ci énergie mais loolu mm-hmm. parce que ñi war a encadrer nit ñi ci loolu dafa loolu dañu dugg seen yoon parce que bu ñu la jiitalee dafa am niveau booy am ci wàllu njàng ci wàllu xam àdduna sa population yi ci suufu sax duñ ko xam mm-hmm. kon yaa leen di jege informer leen pour benn tension bañ a am mais bi bu mu commencé ba léegi ñii dañoo nangu ñuy bañ ñii nangu nañu sama suuf nangam lañ ma ci imposé jaral na ma jël naa kii ne liñ ma imposé jaral ma du ma jël loolu tamit ki jëlul day perte ki jël day perte ñaar yëpp day perte parce que yow war a ànd ak liggéey bi moo ci ànd tey fa ma dëkk nii nii nii pour ma dem laandu damay dugg ci pax génn naa duggaat ci pax génn naat est ce que na ko est ce na ko mais loolu amoon yoon booy jaar ba dem laandu directement am yoon booy jaar ba dem rond point pour jëlee oto dem Dakar am loolu moo gëm am 2 millions sa day jël suuf mm-hmm. man foofu laay gisee ne foofu la ñu duggee

ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti dinga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV KMTV njëriñu waa Kër Mousse